fidèles téléspectateurs de Sunugal 24 ñu leen di jaajëfal bu baax a baax a baax topp gi ngeen ñuy topp waaye tamit rawatina ànd bi ngeen ànd ak ñun euh, su ñu leen di jaajëfal saa su ne ànd bi ngeen ñu ànd suñu plateforme yaa ngi bi waaye tamit rawatina suñu émission bi nga xamante ne nag moom lañu dëppee sama talent émission bi nga xamante saa su comme d'habitude ni ma koy waxee rek c'est le meilleur web waaye nag ñi koy ñaar ñi koy def nag di les plus jeunes animateurs Sénégal di DJ Momo ak DJ Fou saa si nekk nag ñu si faral di dalal ay ndaanaan képp koo xamante ne nag ndaanaan ci li ngay def euh, dinañ la dalal suñu plateau bu yànji bi euh, fas yéene waxtaan nag si say jaar-jaar waaye nag émission bi nag saa su ne comme ni ma koy daal di waxee rek euh, dama ci dul wéet ndax ki may àndal moo tax muy doomu parcelle ji di DJ Zal DJ Zal maa ngi lay siyaar borom golf bëgg naa la. bàyyi nga bu jàmm. waaw ñu ngi nuyu di la jaajëfal bu baax a baax. mais gars yi des fois dañuy casse nee nañ verre yi dañ ko war a tekki. mais xam bala dañ ñu wax lu gis ci commentaire yi mais amul solo. <laughs> di leen jaajëfalaat bu baax a baax bienvenue sur la première chaîne du net 1. salut chers amis fidèles téléspectateurs de sur 24 selon que vous soyez en Afrique en Europe en Asie hmm. partout à travers le monde ñu ngi leen di nuyu tey amaan mbégte ak contentement bu mag. di leen jaajëfalaat bu baax a baax di jaajëfal ki baax ki gën ci man borom def gis. ah ah Fall xam nga ko. weekend. <laughs> moo ñu ngi doog a tàmbali jël nañ dem ba si garab ndax Dóor waar des fois daf muy ruube. non c' est xam nga lu ma yow nga fou. <laughs> yow xam nga li lay wan que ni da nga fou mooy yow faroo fenn wax téléspectateur yi que ni fou. chaque dafay bëggee kenn. waaw mais nag noonu la ah, ñu koy ñu a. bu baax a baax gaynde Fuuta. nee naa la euh, c' est un bu marabout traditionnel. Mhm. di ko jaajëfalaat bu baax a baax ki nga xam ni dama jël sama bakkan joxo ko mhm. de Fouta. di ko jox nga ko benn bakkan jox naa ko jox naa ko sama bakkan. di ko jaajëfal wàccee sama bopp macha allah borom def gis nee la lépp lu la defal da koy gis macha allah. di ko bëggee baax a baax Gaynde Fouta. ayca mi ngi noonu Gaynde eh, mm-hmm. ñu dem douane fi nga xamante ne moom mooy Kaffrine jël ki nga xamante ne tubaarkàll eh, Sénégalais yi dañ ko xam. Mm-hmm. waaye tamit Sénégalais duñ ko bëgg à travers réseaux sociaux yi TikTok Instagram YouTube gars yi ràññee nañ ko bu baax a baax ñu gën xam doom si Tima di Mati Ndaw di Miss Kaffrine Mati maa ngi lay ziar. maa ngi lay ngi am jàmm maa ngi lay nuyu di jeey fo mhm. di nuyu ñi seetaan à travers suñu gaal 24. voilà di am contentement ci invitation bi merci beaucoup. Mhm. fu te Miss laa lay indil. <laughs> jar uh-huh. ndax. Euh, dafa jël bakkanam <laughs> teg ko ci di ko jaajëfal bu baax a baax ñu gën ko xam ci macha allah euh, euh, Tima di la béggewaat bu baax a baax aman bi te nee naa la tey fii mu toog talent moo ko indi. Mm-hmm. doon na ki nga xam ni macha allah Miss Kaffrine 2000. 2020 2020 macha allah 2020. 2020 21 21 ok Cheikh xam nga mooy loolu. da ngay da ngay kii quoi da ngay kii di nëbbul <laughs> bàyyi di sama der di ko jaajëfalaat bu baax a baax moom bu ko defee mën na ñëw ci waxtaan waaw saa su nekk rek comme ni ñu koy daal di waxee rek sama talent la wax mhm. te dafay émission boo xamante euh, Sénégal yi dañu koy bàyyi xel bu baax mm, képp koo xamante am nga talent ci li ngay def rek euh, dañu koy waxtaani wax ci say jaar-jaar euh, wax yaay kan bu ko defee Sénégal yi gën la xam ndax fii nag suñu gaal 24 la wax feeñ la tubaarkàl ku nëbbatu woon bu waxee fii di nga waa di nga daal di feeñ <laughs> mais yaakaar naa yi mhm. ah, nga xamante ni da nga koy def mhm. c'est juste rek tey dañu war a waxtaanee li nga xamante ne moom mooy carrière bi ah, depuis quand nga ci dugg xam nga. da ciy baax mu expliquer wax moom mooy kan ak kan quoi bu fekkee dafa am loo ci tëmbal. nga tëmbal ko ci tuuti balaa ñu ñëw ci question yi parce que tey moom. dañoo war a waxtaanee dañoo war a jàkkaar moom. parce que ku xool lii mu def. def na sañse def chic macha allah après yenn plan serré sax duuraal mën nga ma ko jëlal. xeesaloo yàqul teewam. kontaan ci moom bu baax a baax tey jii nii. buñ bëggoon wax tuuti. kan mooy Mati Mati. lan wax. Euh, avant tout maa ngi lay remercier ci question bi. Mhm. voilà je peux dire que Maty nekk na benn nit bi nga xam ne Maty ku simple. Mhm. amuma problème voilà maa ngi juddoo dëkk bu ñuy wax Ribo Escale dans le département de Koungheul ci région de Kaffrine voilà Maty nekk na benn jigéen bi nga xam ne ku ambitieuse la qui a ses principes ses mhm. ku gëm boppam gëm li muy def nangoo liggéey xam fu mu jugee ak fu mu cosaanoo voilà euh, en grosso modo je peux dire que euh, may mooy Maty daa Maty en personne. <laughs> voilà mais <laughs> ki dafa neex. dégg nga naan dangoo liggéey. Ah, gëm boppam. mais ah, mais c'est l'essentiel. ah boo waxee sa bopp ke da nga war a nangoo liggéey gëm sa bopp. Ah parce que loolu mooy l'essentiel. ndeysaan ba pare bëgg sa bopp quoi. bëgg sa bopp surtout loolu mooy sa ma tax ci plateau naa man damaa bon <laughs> ah man la Mouhamed kii dafa neex mais moom moom saa tey moom dafa doon géwélu boppam quoi parce dafa tagg boppam. Ah, mais nag macha allah noonu la parce que noonu laa mel. la waaw ah, ah, kon bu baax na mais mais euh, en parlant ñu waxtaan ci li nga xamante ni moom mooy moom mooy sa carrière ñu gis nga nekk Miss di défilé. Euh, ñu bëgg la laaj depuis quand nga intégré doon Miss ak lan moo la inspiré ba nga tëb tëb rek xalaat pourquoi pas ma def li nga xamante ni mooy mannequin wala Miss. waaw c'est vrai mhm. moom euh, avant tout tamit dama lay leeral ci côté boobu noonu. Mhm. man depuis Mhm. dama mës a rêvé dama mës a bëgg mode la mode wala dama ko mës bëgg. Mhm. parce que toujours dañ ma doon wax naan ma màcc tu as la taille. Mhm. mën nga def lii mën nga def laa. voilà te aussi dama doon participer ci affaire armaton ay armaton dañu doon def di compétir yooyu mhm. affaire miis ak yooyu dama mhm. daan participer ci affaire yooyu rien pour bëgg ko mhm. parce que man lépp lu wàllu défilé dama ko mës a bëgg voilà donc après ci laa nekk di ramper nekk foofu doon sama dëkk di bokk ci ay bokk ci ay euh, organisation di dem bu ñoo invité ma dem di wane li ma bëgg ci laa ñëw bi ma paree sama jàng foofu am bac ci laa ñëw Dakar après ma ne pourquoi pas ma continuer sama sama sama passion li nga xam ne bëgg naa ko depuis toute petite. Mhm. ci laa ñëw fii nii vraiment jàng ba pare. bi ma jàngee def sama diplôme mais en même temps dama ko doon cumuler ak sama jàng. Mhm. parce que duma ma doon empêcher dara wu fait. Mhm. après ci laa ñëw. di dem ci agence yi parce que nee nañ dara boo ko bëggee moom dafa lay jaral donc man daf ma jaraloon may dem ci agence yi di xool nañ laay def pour mën a yokk sama compétence pour mën a yokk ci sama connaissance au fait donc ci laa ñëw continuer di def loolu noonu. Mhm. ci laa nekk ci agence yi ba bi may ñëw def euh, avant may def Miss Sénégal. Mhm. bokk naa aussi ci Miss Labado. donc ma defee voilà Labado avec Jigéen. voilà maa ngi koy nuyu de passage donc mu nekk nit ku baax. moom tamit jigéen mooy sama borom bi <laughs> maa ngi koy nuyu bu baax. voilà ah. mu nekk nit ku baax ku ma encadré ku ma jàppale aussi ci milieu bi. parce que mm-hmm. mën naa wax ne su ma miinee tey bu su ma nee ba nekk mi Sénégal c'est grâce à Jiga. Mm-hmm. donc euh, maa ngi koy remercier bu baax ci côté boobu. Mm-hmm. donc ci laa def Labado après Labado ci la ma nit yi xamee. ma commencé di am benn visibilité ci nit yi nit yi xamee ma que jour muy def affaire mode. Mhm. léegi ci la ma am ku ma proposé ne ma pourquoi pas nga def Miss Sénégal. Mhm. ma ne ko ah ba tey mën naa ko def mu ne ma vu que am nga taille bi te nii nañ genre teint bi nga teint naturel da ci compter mhm. taille bi. voilà intelligence bi te yow loolu yëpp genre yaa ngi am qualité yooyu pourquoi pas nga def ko ma ne ko ko am problème. donc ci laa foncé ci biir ci laa dugg. ba inst bi nii maa ngi exercer sama passion. nga dem ba doon Miss Sénégal. Miss Miss mhm. Miss Kaffrine. Miss Kaffrine bokk ci Miss Sénégal. bokk ci Miss Sénégal. par mhm. la suite après Miss Dakar moo ko mujj gagné. Mhm. voilà. tey jii ba nga dajalee loolu gagné ko. lan la def. Euh, je peux dire que affaire bi nekkoon na loo xam ne vraiment lu ma neexoon la parce euh, man. lii naa sama dëkk ak fierté mhm. représenté naa sama dëkk ak fierté te aussi def naa loo xam ne tey jii nii mosul am ci département de Koungheul mhm. parce que bu dul dara man ci commune laa dëkk Ribo mhm. Escale voilà fière de l'être voilà <laughs> donc euh, ma nekk ci génn ci foofu noonu génn département bi ñëw ba région de Kaffrine gagné région de Kaffrine xam nga loolu nekk loo xam ne lu ndaw la c'est pas que genre dama leen gën a rafet wala dama leen gën a am taille bi dama leen dafa am loo xam ne peut-être. Euh, da leen ëpp caac leen loolu mën na nekk. Mhm. mais dafa nekk loo xam ne rek genre. bu bu du ma si ndamu ba fet peut-être lu waroon a am la sama sens la woon. Mhm. voilà donc noonu laa def pour ba ga ba gagner région de Kaffrine. c'était pas facile nag parce que compétition la ñu wax. dafa amoon ay critères yu ñu tegoon. et tout voilà man damay dama balaa balaa ngay génn foofu sax ci sa question boobu euh, dama bëgg ñëw parce que nan la ñuy jëlee Miss quoi. ça veut yan critères la ñuy jëlee Miss. parce que léeg nga gis ko xamante ni toile day mel ni mu war a mel bu demee gars duñ ko sélectionné. Euh, wala duñ ko jël nga gis beneen beneen teint noir mu ñëw ñu daal di koy sélectionné bëggoon naa xam yan critères la ñuy jëlee Miss. avant tout moom ñu jëlee Miss dafa hmm. am. Hmm. parce que tey jii bu ñu waxee mise. Mhm. danga nga war a am taille bi. da war a mesurer quoi. da nga war a mesurer. Mhm. da nga war a am parce que euh, moo 1 mètre 72 minimum. 1 mètre 72 voilà. jëm waaye mais kooku boo ci boolee ay capp 70 centimètres moom ba doo laal 2 mètres 50. <laughs> ah peut-être bu mhm. euh, ne naturel. parce que am na ñi nga xam ne waa doo xees mais c'est naturel. waaw c'est vrai voilà dañ koy soxla intelligence bi aussi. beauté bi son dépend l'essentiel na nga. nanga yore taay bi critères yu ñu wax yëpp nanga ko am. Mhm. en grosso modo critères yu ñu sélectionné Miss Sénégal Miss loolu la. Mhm. profil bi taille bi taille teint bi. Mhm. intelligence bi. voilà profil bi surtout. Euh, promotion canapé yi nag. <laughs> c'est que du du ci milieu bi du man ki ci milieu mannequinat bi kese la. ah mm. loolu fépp la. tey jii est nga koo dundee non proposer la peut-être koo xam ni tey jii nii des fois gis ñoo xam ne ñi bëgg mhm. doon ay célébrité wala dara mhm. gars yi di leen proposer yenn nii promotion canapé yi nga xam ne tey jii xew na mhm. ñëwal kat ñu def lii tëdd après nga am ci lii de retour est que tey jii nii yow euh, dund nga loolu noonu voilà man je peux dire benn côté avant tout balaa may wax su loolu sax damay wax que ne promotion canapé du ci man milieu naa kese la am dëgg fépp la am c'est mais nit ku nekk yow yaay nekk sa nitu bopp nekk sa magu bopp gëm li nga doon sa gëm-gëm nag moo lay poussé nga de nga nga nga yegg fi nga jëm. parce que mhm. tey jii nii boo ne man mannequin mannequin laa. Mhm. da nga war a am nooy mel. te mhm. yaakaar naa ne tey jii turu mannequin naa boo ko déggee turu mannequin rek boo ko déggee tey. ñu bëri seen xel dañuy day am ay jon ay doute ndax da ngeen naan xii mannequin ñoo fi gën a def ni ñoo fi gën a ne alors que du loolu nit ku nekk yaay doon sa magu bopp yaay nekk sa am sa fulaay bopp. tey jii yow de ni mu la gisee noonu la lay ëwalee n'est-ce pas. tey bu ma bu ma la wanee ñàkk fayda loolu mooy nekk ci man. Hmm. man je peux dire sa question bi laay ñëw pour wax la question man. mosuma hmm. dund affaire yooyu mais du ñàkk. Hmm. dina am ñoo xam ne tey dund nañ loolu. mais dina am ñoo xam ne lii proposer relation mais ay kam kam kaa ma def la lii pour nga mën a def lii. vraiment man man en personne Maty Miss Kaffrine en personne musuma dund lool. mais bon di nga am ñoo xam ne tey duñ du si ñàkk parce que. wala ñoo xam ni say amis ñoo xam ne peut-être dund nañ ko ñëw expliquer la ko. waaw loolu des fois du si ñàkk parce que da ngay am loo xam ne tey dëkk bi tey moo toll fi nga xam ne tey jii am na ñu bëri ñu baax ñu ngi baax ñu bon ñu ngi bon ba tey mhm. tey jii kuy def te yàlla tax ñi ngi def te yàlla tax ñiy def tëgg mooy lool ñu ngi mhm. koy def ba léegi mhm. donc sama yenn copine du si ñàkk loolu moom dama ci dama koy appuyer parce que am na ñu ma ciy wax loolu mais man vraiment c'est pas que dama kii moo tax duñ ma ko proposer mais sama yenn copine vraiment am na ñu xam ne ne moom vraiment dund nañ loolu sa caractère quoi moo tax duñ la ko. waaw sama caractère parce que melu ma nenn mais dafa am loo xam dafay nekk ci nit. fa laa jaay Dakar. waaw ah, <laughs> voilà. fula mooy jaay Dakar. donc loolu la du question man du fula sax du kii affaire yooyu mais. Mhm. dama xam ki ma doon. Mhm. c'est ça dama xam ki ma doon. te mhm. tey jii boo xamee li ki ki nga doon ku la gis da lay respecté. dëgg la man nag dama nekk nit koo xam du ma du ma du ma vanté wu. mais je Mhm. parce que loolu mooy l' essentiel. boo ko mhm. génnee ci nit amatul da amu fa dara. Mhm. voilà. ayca mi ngi noonu moom vraiment am na solo loolu saa su nekk rek ñu leen di fàttali ñu nga xamante ne moom mooy Tima euh, di Miss Kaffrina bokkoon ci li nga xamante ne moom mooy euh, mu doon ko xamante ni Sénégal yi euh, dañu koy bàyyi xel waaye dañu ko ràññee mu doon fierté dëkkam nag. mais dafa am ci loo xamante ni dañu koy dund léegi. parce que ay temps jamono passé ku nekk déggoon na cool Miss dox seen biir rek mm-hmm. ah, tuwaar kàlla ku nekk da ngay def lii dund lii xam nga euh, donc coow loolu ko gisee woon en tant que miss voilà coow lii vraiment métti woon na ñun ñëpp. parce que tey jii nit de. <laughs> déet damaa xam ne yow kooku. ngeen ni ndaw nga. Uh-huh. <laughs> yaa ngi sa bopp nga dem ba tëdd ñu tëddee la te yëgoo ko loolu moom. waaw <laughs> c'est que man après affaire yow vraiment bëgguma ci sax di ci wax. parce que le passé c'est le passé. mais bon. c'est que ku ci nekk tey jii nii. comme fi ma waxoon rek laay wax yaa doon sama gub bopp. Mhm. yow yaa xam ki nga doon. <laughs> Hmm. yaa mën a sa nit ku nekk boo wéete di xam nga sa bopp. donc tey coowu miss bi vraiment man métti na ma parce que ci miss yi laa bokkoon. ñoom hmm. duñ comprendre hmm. xam def ñoom daal dañ naan ñëpp la. donc côté boobu moom tamit euh, Fatima Dione parce que je la connais bien. voilà donc di ko mastawu <laughs> bu ko daloon bis. parce que est-ce que est-ce que est-ce que nekkul li mu doon sa xarit moo tax. Eh xam sax c'est que jigéen moom lu ñu naan jigéen du xii mhm. ku yéeg du réew mi ko xasee olof man comprendre ma <laughs> olof yi daal moom <laughs> <laughs> la que mhm. di surtout jigéen mhm. dafa am yoo xam ne ne danga ko war a kii sa bopp danga ko war a inculquer sa bopp dafa war a nekk ci yow dëgg la tey jii nii nekk miss taxul nga bon peut-être nit yi rumeur yi ngay dégg rek ñooy yàq liiwu nit yi xelu jaan nit yi Mhm. fekk du loolu. mais mais mais yéen mais yéen yéen yéen yéen dafa am benn baat boo xamante ne koy cërale ça veut dire que comme li nga wax sànq boo nee miis rek sa xel dafay xaw a tey parce que de un seen colin de un seen comportu xam nga mhm. genre ku nekk daal boo xawee ni man sama doom miis wala sama doom day bëgg a doon miis rek mhm. da koy bëgg a tamit loolu lan la parce que loolu yéen lu ngeen la n'est-ce pas parce que xam nga ne tey déjà solin bi. c'est pas que dañuy sol lii suñu yëpp mais Miss tey boo ko waxee da war a gis sa profil sa taille. Mhm. même man boo nekkee mannequin aussi c' est la même chose parce que mannequin sax seen solin moo gën a sexy que ay affaire yu Miss. parce que Miss ñoom dañuy dañuy dañuy préféré nga sol loo xam ne tey sa profil day. Ah, day génn non Miss comme tey ji boo doon wax euh, ci comme moo doon joxe différence bi tey. Mhm. mannequin tey seen démarche. Mhm. day mooy gën a gaaw. miis doxam dafay mel ni miis comme une reine mhm. comme reine buy dox day def nànk mhm. alors que mannequin da ngay def naa da ngay fas sa kanam. ok moom dama ko bëggee sax bu def défilé def ay mannequin <laughs> fu xam naa. voilà di dox dox bu gaaw alors que Miss moom dafa war di sourire chaque jour. Mhm. di di di dox dox bu yi comme une reine. voilà donc loolu. voilà pour question moom bi aussi tamit du loolu nekk Miss comme ni ma la ko waxee taxul nga bon. solin bi taxul ñu wax la na la da nga bon nit ki mu ngi sol yére fekk li nekk ci ci moom. ay jikko yu baax la. donc dafa am loo xam ne ne bu ko nit yi di di xel di di xalaat. Mm-hmm. parce que nga gis nit ki rek tey jii nga nga nga kii ko. Mm-hmm. nga jox ko ay ay ay comme nga gis nit rek. Mm-hmm. nga am ay mots yoo koy sànni aloo ko xamoo ko. loolu lañu war a bàyyi. parce que tey jii ñu ne miis rek nu mu soloo kii dafa def nii cagala wala di non non. parce que tey solo man ni ma soloo tey jii nii. ñu bëri dañuy wax ne dafa sexy mm-hmm. man sama profil du question yëre bi moo sexy mais profil des fois day sexy Mhm. comprendre nga booy tax mooy jël yére boo ko solee mu sexy nit nag duñ jàpp nañ naan xii kii li muy sol moom lu sexy rek lay sol lu bon lay sol non non nekk mis taxul nga bon ne taxul nga jël ay yére du bon di koy sol mhm. voilà ayca loolu am na solo ba tey di leen fàttali que ni yéen ci biir émission bu mag bi sama talent ñu gën ñu ànd ceeg nga xam ne moom lañ naan euh, euh, Mati di ko jaajëfal bu baax a baax doon euh, Miss macha allah 2021 ñu ànd ak moom ci biir plateau bi mhm. te jii nii bu fekkoon am na conseil yooyu jox sa mbokk yi yi yi nga xam ne ñoo ne ci milieu bi wàllum chantage bi ñu ciy dund tey ji ban conseil nga leen di sànni voilà man conseil yi may li ma leen di jox moom laay lii sama li may jox sama li ma kii sama bopp moom laa leen wax mhm. gis nga nit foo mëntu nekk xamal yaay kan mhm. gëmal sa bopp xam sa valeur say principe mhm. gis nga loolu boo ko ci génnee amul leneen comprendre nga donc miss boo ko nekkee xamal ne man lii sama passion la dama koy exercer après mu jeex Mm-hmm. su ma mënee poursuivre samay samay samay activité ma continuer mais tey jiine du ma ne miis laa rek dama war a def lu bon parce que nit ñi xam nañ ma rek dama war a def nii wala dama war a def nii mm-hmm. non du loolu mais en tout cas li ma leen di conseil mooy li ma waxoon rek laay wax gëm sa bopp xam li nga doon xam li nga bëgg. mais gars yi dañuy am talent nag c'est que xam nga rek bëgg ko exploité. duñu am fu ñu ko exploité. Mm-hmm. après dañuy benn producteur bu mag ñëw ni leen. Mm-hmm. nañ def lii ñu def lii après dañ dañ parce que dañuy bëgg dañu bëgg dañuy bëgg siiw. Mm-hmm. tu vois de nii dañuy dañ daan nañu xam obligé def lii nii pour mën a siiw gars yi xam yooyu noonu. est que tamit. gars yi fii Sénégal pour nga fël fi daa yombul de. waaw dafa yombul loolu tamit c'est vrai man yemuma nekkuma ci milieu mannequinat bi rek am naa yenn yu may exercer. Mhm. donc da ngay gis lu nekk. parce que tey dañoo toll ci Sénégal moo toll foo xam ne tey lépp looy def rek. Mhm. foog nga am koo xam dala ciy dimbale. mais dafa am comme ni ma la ko waxee woon rek ñoo xam ne tey ñu ngi fi nekk di def lu baax ba tey. am mhm. ñoo xam ne tey dañ fi nekk rek def lu bon. mais man tey bëgg naa siiw taxul ma dem joxe sama bopp wala mm. taxul ma jaay sama ngor mm-hmm. donc dafa am loo xam ne dignité la ak mm-hmm. personnalité tey bu ko loolu nit bu ko gisee ci yow rek dina lee dalee respecté voilà donc loolu la mm-hmm. Aïcha mi ngi noonu saa su nekk rek euh, ñu ñu koy jaajëfal bu baax mais nag bëgg nañu euh, am na ci loo xamante ni dañu koy gis léegi léegi ci TikTok parce que gars yi ñu bari say commentaire euh, dañuy wax ne da ngay exposer sa bopp ci TikTok bi ça dépend ci ngay solo xam nga exposer sa yaram bi loolu noo koy dundee si man awma ci problème parce que Sénégal la ñu nekk soo defee dañuy wax soo deful dañuy wax. Mhm. mais moom man en personne xam naa ki ma doon. sam mhm. ñi ma xam aussi xam nañ kuy mati ndaw. Mhm. man am nay genre yére yi nga xam ne sax mu koy proposé duma ko sol. mais comme ni ma leen ko waxee rek. solu ci yaram la. tey jii su ma solee benn yére. yére bi même bu ñaawee sax. sama yaram da da ci da ciy rafet. Mhm. parce que lu luñ naan solo ci yaram la. Mhm. donc du damay exposer sama yaram bi parce que loolu moo tax nit ñi ma. Mhm. bëgg nañ Maty c'est pas que Maty day sol lu sexy wala day exposer yaramam moo tax nit nit yi di ma bëgg. du loolu. loolu ci yaram la. solu ci yaram la. donc man lu ma sol lu nekk nit ñi ku ma xam-xam na ne man duma ma di lu gàtt. c'est très rare xanaa suñu compétition bi sax moo tax ma commencé di sol. su ma koy def guddi lay doon. te suñu kër lay yem. c'est un maison am na yoo xam ne moom mënu ci ñàkk parce que tamit xale lañ foog ñu wane suñu. dëgg la <laughs> ay bi oh, sama dernière question rek <laughs> tey jii nii euh, fu ma moo dugg see fa laay jaaree muy wàllum TikTok bi nga xam ne peut-être lëmbi na dëkk bi mm-hmm. tey jii nii bu ne lañ ciy gis. nga gis yoo xam ne ni peut-être li muy def sax moog yaramu neen daanaka ñoo bokk des fois dafa la di dugal yi nga xam ne moom lañ naan ay cas yeeg yooyu noonu tey jii nii boo amoon benn conseil bi nga xam ne moom ngay sànni jeunesse bi surtout yow mi nga xam ne yaa ngi ci milieu bi te en plus yaa ngi doon mus mais teewul ni aussi yaa ngi say yeneen business sa yeneen activité yoo xam ni yaa ngi koy job tout ça tey jii ni gars yi jël seen live yëpp concentré ko ci TikTok lan nga leen di message ban message nga leen di sànni. c'est que ñu jël seen ah, live yëpp teg ko kii ko ci TikTok bi. Mhm. ñooñu peut-être dañoo seen bëgg-bëgg la. Mhm. ndax fii ku ci nekk rek sa bëgg-bëgg ngay demee. Mhm. mais avant tout. yow lépp li ngay def rek na nekk li nga xam ne da nga koy bëgg. Mhm. ndax am na ñoo xam ne tey si TikTok bi ñu ngi siy tekkee am na ñoo xam ne tey jii nit ñi xam nañ leen ci am na ñoo xam ne tey jii si TikTok la ñuy permettre tey di eh, comme man sama genre TikTok laay permettre pour mën a exposer samay samay bagage mhm. kon xam ne tey jii nii nekkul loo xam ne tey lu bon la mais benn côté day day am ñoo xam day am yoo xam ne tey mu ngi leen mu ngi leen defal ay jon kii ci côté bi. Mhm. tey fu mu amee fu baax rek am na. bu amee avantage am na inconvénient mhm. donc man pour wax leen carrément ko ne TikTok bi euh, dafa nekk loo xam ne tey jii nii dañu permettre tey ñun ñëpp muy man muy keneen mhm. di nga ci mën a exercer say li nga bëgg a def mhm. benn côté mën na baax benn côté mën na bon. mais ça veut dire que waxuñu waxuñu benn ciment bi nga xamante ne dafay def vente en ligne. di jël ay yéreem dugal ci biir TikTok. waxuñu ki nga xamante ni euh, dafay dafay jaay yéet wala géej dugal TikTok. dañuy wax ça veut dire ki nga xamante ni amul benn métier xëy matin midi soir. teg challenge bu am challenge waaw répété minutes. <laughs> yaa amul benn temps lu dul jël temps di ko def ci TikTok bi kooku la ñu bëgg. question dañoo am temps parce que tey ñoo jël TikTok. Mhm. dañ ko fi teg. Mm-hmm. waxuñ ne da ngay dem nit ku jóg rek da ngay dem fa def nit sa mm-hmm. ku nekk da ngay concentré wu ci li nga nekk man xam nga man moom vraiment mënu ma wax ci ñi nga xam ne tey amuñu lu ñu def dañuy xëy di TikTok parce que ñooñu amu lu may wax ci ñoom mm-hmm. voilà mais damay wax ñi nga xam ne tey jii nii ñoom ñi ngi ñi ngi liggéey bu xool nan la ñuy def pour mën a jaarale seen liggéey foofu mais vraiment ñi ñi xam ne ñoom ñi ngi concentré wu amuñu dara lu ñu def topp seen TikTok vraiment ngeen arrêté loolu tax xool liggéey bu gën a TikTok moo gën voilà à Miss bi lan nga def voilà man à part Miss bi. Mhm. damay euh, def damay nekk tamit ci wàllu cinéma parce que affaire acteur acteur damay def actrice. Mhm. film bi gën a mag ci Sénégal kër gi moo koy produire Araw DG amaatul beneen film bu ma xam man Araw DG rek lay seen suñu gaal 24 film bu kii aussi maa ngi ci doon waxtaan ak moom sax. Mhm. Euh, donc man damay def affaire cinéma aussi. damay def affaire top modèle. man kii naa boo ko defee tamit si nga bokk aussi tamit commerçante la parce jël. Eh, loolu 2 millions 500 la publicité bi <laughs> ngeen donc ku ci bëgg rek xam nga fa may fekk parcelle unité 18. Eh à côté du terrain Mandela. numéro de eh. téléphone comme d'habitude. <laughs> numéro téléphone boo ko dugalee dama naan gars yi ko. <laughs> waaw. noonu la daal di demee mais aywa hmm. continuer. Hmm. donc mu nekk boutique boo xam ne tamit. comme hmm. lan nga euh, ay dàll ay saak. voilà lépp lu baax rek xeetu baax baax. nga mos a gis pere à côté bi ñuy jaay géej yow. non mun na jaay yeneen loolu am na mais man xam nga man comme góor ñi man samay xarit lañ. góor ñi laa mën a defante. <laughs> <laughs> donc loolu la nag. <laughs> ndeysaan voilà ayca mi ngi noonu saa su ne rek comme d'habitude balaa ñuy dem moment de divertissement l'émission ci Arsafin euh, li ñu jagleeloon nag ci waxtu daanaka jeex euh, ndax euh, amaane li ñu jagleeloon ci waxtu daan jeex mhm. ñu dem ci moment de divertissement ànd si ki nga xamante ne mooy Fouguéry moment de divertissement ñu dem te ñëwaat Oh, ñu sifflé tuuti ay ci moment de divertissement ñu ànd ci Fouguiri Fou maa ngi lay bàyyi nga dem ak dimanche waaw mi ngi noonu moomoo balaa ñu dugg tuuti xam nga c'est que da nga toogoon une longue durée boo xam ni. Mhm. waaw da nga gëjoon tournée moo tax <laughs> sama gars yi dañ may sonal lekk. waaw Ousmane Noël Dieng moomoo. ndeysaan kenn ku borom Kaolack borom Kaolack suñu kilifa suñu PDG. Mhm. ki nga xam ni naw nañ ko. Mhm. ñun les plus jeunes animateurs macha allah. dañ lay safoo di la tiitaroo ci social yi nga xam ne yaa ngi koy def à travers TikTok bi. Mhm. social yi nga xam ne yaa ngi koy def te euh, euh, euh, fépp. Mhm. yoo xam ni des fois ay commentaires sax dañuy gis kenn commentaire dara lu am solo mhm. mu jël yónnee ko jox ko dara. ñu koy félicité bu baax a baax doomu Kaolack bi Ousmane Nawel Dieng di jaajëfal bu baax a baax moo jee astu jee astu borom Allemagne borom ñafal-ñafal borom produit yi jee oh. astu borom ñafal-ñafal boo duggee TikTok di nga ko gis jee astu borom ñafal-ñafal moom nee naa la xam nga eh. jamono ji gars sëy day gaaw a tas. moom day téye sëy balaa nga koo xam dugal TikTok wala Instagram nga tapé jee astu produit yu baax yoo xam ni macha allah dinañ ci gën a développé après xam naa temps bi ñu xaw a tënk mooy loolu incha euh, borom borom kenn du moom barki alxuraanul karim mm-hmm. am lu may seet mais sinon yëkkati naa sëñ Amadou Diakhaté borom mbuur ñu koy jaajëfal bu baax a baax nee naa la heure bu ma xëyee toog gën a leer gars yi di ma gën a bëgg am fitu wax fu ne mm-hmm. sëñ amadu la mm-hmm. borom mbuur boo xam ni borom def gis la. Mhm. di ko jaajëfal moment de divertissement. waaw moment de divertissement e, tey jii nii gis nañ macha allah lan moo tax xeesaloo. xeesal moom vraiment musul nekk sama bëgg-bëgg. ma dama préféré sama teint naturel parce que tey jii nii teint na teint suñu teint duñu peau dañ ko war a respecté parce que mhm. ñun ay noir lañ mhm. voilà donc duma ma jékki saa na ma mën a nit ñi xamee ma xees ma dem jël sama peau bi xeesal ko bu mu xees. Mhm. voilà loolu aussi dafa bokk ci qualité yu ñuy xool ci jigéen. Mhm. parce que tamit c'est naturel. bien sûr. lii nag. Euh, ongle yi lii du la rek mais bon damay fóot damay bale damay def la lu jigéen war a mën yëpp dama koy mën. togg togg ban ak ban nga mën. togg palaa boo bëgg mais suppu kànja nag dama ko mën. suppu kànja waaw ah, lu moom bëgg. foog nga invité ko. non bu tax ngay jàpp ma yow eh, dama koo mën. Uh-huh. togg moom vraiment mën naa ko loolu moom xaw ma lan moom tamit du togg. Uh-huh. Uh-huh. ah mi ngi noonu célibataire wala en couple. célibataire. rëddër <laughs> ci sama cameraman ah, xaar wala yow yaa dàqi wala gars ñemewul nu mu noonu. dàkki woo sax mais xam nga rek du jot yomb. gars yi fi ni ñuy toog ci média naan dàkki ma dëkku ñëw ñu ne la. Oh, xaaral ah du loolu sax. Hmm. toujours daa yombagul rek. Hmm. waaw daa jotagul rek du moins. daa jotagul. Hmm. te lu jot yomb. tey jii bu doon signé ak sa looy wax jugee nu benn benn danga naan ko mu yem ci yow polygamie wala monogamie. man daal xam nga lan laay bañ. man man ay premier deuxième. loolu amul sens yow daal l'essentiel man daal l'essentiel naa tëj bunt bi rek. cum voilà naa tëj buntu bi rek. bëgguma naa ñiy tegu sama kaw naa naay tegu ci kaw nit ñi. ngay tegu ci kaw nit ñi. mi ngi noonu tey bu la waxul li nga wax ni sa digganteeg euh, sa yaay. Mhm. parce que doon nga koo xam ni peut-être sopp nga ko doon nga koo xam ni bëgg nga ko gaa. ñëpp mhm. bëgg nañ seen yaay. Mhm. mais dégg naa cofet gi ñu ci am dafa jéggi dayoo. ñu ci mënoon wax tuuti. moom moo nag yaa may door a question. bu ma Saliou ah sa xel doom. <laughs> parce que Saliou am na mu ko sonal. donc yaa may door a posé ma neex. Mhm. parce que tey jii nii sama yaay sax damay kontaan. seetlu da ma wax sama yaay rek mu commencé changé. Mhm. parce que dama koo bëgg. sama référence la. Mhm. tey jii nii moom moo tax tey lépp lu may def rek. moom ci moom laa ko gisee. sama yaay aw ma kenn ku dul sama yaay. Euh, sama yaay dafa nekk koo xam ne ne. dafa doon sëy ci benn kër. Mhm. mag takk ko mu nekk ak moom sëyal ko sëy bu rafet macha allah te tey jii xale lépp lu mu gis rek. Mhm. loolu lay loolu lay def. loolu mu doon def yëpp dama koy gis. Mhm. ni mu jàmbaaree. macha allah ba sama papa décédé. fu mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm. ala taxareeku aljana donc mu nekk koo xam ne ku jàmbaar ku brave parce que tey ji lépp lu ma def tey tey c'est grâce à ma maman donc maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gi yaram parce que tey ji lépp lu ma bëgg rek sama réussir su ma gisee may reyante rek moom moo tax te li ma bëgg man li ma bëgg defal ko yàlla na ma ko yàlla yàlla na may gudd fan ak wér gu yaram parce que lu ma ko war a defal yi su ma toogee si ko damay dama fi fanaan mhm. parce que tellement ni mu mel ci man mhm. tellement ni ma ko bëggee tellement ni ma fiyeeree ci moom mhm. parce que du question man fii laa xam am naa tam benn mag ma nekkal kooku tamit vraiment comme moment ci man voilà bi ci ndaw dama koy nuyu de passage sama mag jooju ku baax macha allah moom ma yore ma defal ma lu nekk amul lenn lu ma bañalul donc man sama famille macha allah mm. su ma waxee sama yaa fa mu tudd sama famille parce que mm. ñëpp maa ngi lay nuyu de passage de toute façon. yàlla na yàlla réaliser lève yi tey bu ñu la waxoon suñ question mujj. Mm. lan nga dund sa life loo xam ne moo la gën a marqué sa giiru dund. du ma gën ñu expliqué. sama décès papa. loolu nekk na li nga xam ne tey. damay toog ba léegi di ko kii parce que bu dul dara tamit pap pap rek la mën a doon même bu dee màgget sax ba nga koy jël di ko weer di weeri sax pap rek la mën a doon loolu bokk na ci li ma gën a gën a gën a marqué parce ñàq papa dafa metti mënoo <laughs> sax comprendre sinon damay jooy fi léegi si <laughs> lay bañ donc euh, de façon lu ma kii la lu ma tiis la mais bon yàlla bu soxlaa ku soxla day ñàkk. Mhm. donc euh, dama koy ñaanal rek fu mu tëdd yàlla na ko yàlla yërëm xare ko aljana. Mhm. ayca loolu am na solo trop amaan mbégte ak contentement bu mag euh, dalal ko suñu biir plateau ñu gën ko xam ci Maty vraiment doon ki nga xam ne naa la mooy Miss. Sénégal doon Miss Kaffrine. Miss Kaffrine Miss di ko jaajëfalaat bu baax a baax moom. ayca mi saa su nekk rek loolu la ñuy indi ci li nga xamante ne moom mooy divertissement ànd ci fu euh, jooy na ku ne waaye <laughs> ay li ma bëgg wax mais avant ñuy avant ñu ñëw ci suñu samay samay questions yu mujj ban message ngay lancé. voilà dama doon waxaale. que mhm. genre dafa am benn programme bu may organiser. Ribot mhm. euh, Escale. parce que tey jii ni comme maa ngi ci milieu bi. seen normal man ci ma bokk ci ma participer ci développement bi. Mm-hmm. donc dama war a organiser sur lendemain tabaski. Mm-hmm. Euh, benn événement boo xam ne ne wan ma sa talent la tudd. voilà euh, ak day am. <laughs> yow te damay ñëpp sax ngeen ñëw. voilà euh, damay am acteur acteur kii yi nu mu tudd centre kii invité yi. Mm-hmm. Mm-hmm. Bastoun la ak Pipana ak Toch. Mm-hmm. voilà mu nekk loo xam ne ne maa ngi ci woo ñëpp bàyyiwuma kenn. wala di wax tamit autorités yi nekk ci région de Kaffrine yëpp. te maa ngi leen di tàllal loxo ñu jàppale ma. comme ni ñu ko defee rek sur lendemain Tabaski ça sera le 12 incha allah. comme ni ñu koy defee nuyu sama parrain. ministre Abdoulaye Seydou Sow mm-hmm. nuyu maa ngi nuyu ñëpp baddu lii dayu ma kenn su ma limee damay juub ma Yacine Camara bàyyi ma kenn sama marraine bi day moom mm-hmm. la Lyon voilà maa ma kenn di leen nuyu de passage mm-hmm. te kontaan naa merci beaucoup ayca merci donc mën nañ daanaka ci projet yi la rek xanaa kay dafay daal di tàggatoo foofu parce que wax na li nga xamante ni moom foofu la woote lan sur lan demi tabaski ah toirkall mu leen di woo foofee ci dëkkam euh, dégg noonu ah toirkall yéen voilà xam naa bu ngeen paree après na ngeen may souhaiter joyeux anniversaire parce que sama le 10 mooy sama anniversaire <laughs> voilà di wax euh, am contentement rek. ci mhm. bokk ak yéen plateau bi. Mhm. vraiment euh, ça a été un grand plaisir pour moi. Mhm. bokk ak yéen plateau bi. di leen wax que ni genre kontaan naa bu baax se invitation bi. merci beaucoup kontaan naa yéen ñëpp di jë di jë Saalum <laughs> voilà kontaan naa yéen ñëpp en tout cas. c'est un grand plaisir man dama ko sonal quoi parce que li ma gën a ñor si moom mooy que ni dafay wan R bi quoi R R bi néew du ko génnee ak N bi. voilà maa gën a am lu ma neex wax dëgg fa neex yàlla si noonu kontaan na nga xaw ma xosi wala gàjji <laughs> Madoukilissi vraiment wesh. <laughs> ba tey di ko souhaité waale un bon un bon anniversaire borom la 10. macha allah Mati Miss euh, Kaffrine doon na ki nga xam ni nee naa la elle est ambitieuse doon na ki nga xam ni jigéen ju mën góor la teel la xëy guddee wàcc mën nañu ko xamee. Mhm. di la souhaité un bon anniversaire rêve yi nga xam ni yaa ngi ko am ci sa waajur ak li nga xam ni bëgg nga ko réaliser mhm. yàlla na la ko yàlla defal yàlla na ko yàlla mottali di la jaajëfalaat bu baax a baax euh, di jaajëfal ki gën ci man jëlal. Milka style borom kolo baan Milka war nga ñëw solal moomoo nag boo soo solalee waaw pend da nga war a sonal naar waaw sama contrat jeexul tamit quoi ay jam mi ngi noonu macha allah Milka style di ko jaajëfal bu baax a baax borom Colobane nee la ba tey mën nga ko dem contacter euh, mooy loolu numéro di 70 1 853 54 59 gars yi borom Colobane Milka style di ko bëggee bu baax a baax doom ndey moom moo cuus moom moo di la jaajëfal ay mi ngi noonu saa su nekk rek ñu koy ndar foofu nga xamante émission bi daan na jeex kontaan continuer mieux maîtriser waaye nag di leen a a baax saa su bi nga xamante moom lañu dëppee sama talent waaye tamit di jaajëfal téléspectateurs yi yéen ñi nekk via Facebook waaye tamit yéen ñi nekk Instagram TikTok ah tubaarkàlla surtout suñu page bi nga xamante nag moom mooy suñu gaal euh, ah, web saa eh, dama koy wax saa waaye nag di nuyu ki nga xamante dafa baax ci ñun gën ci ñun muy sëñ Amadou Jaxate nekkee foofu ci Mbuur tubaarkàlla muy maara bu baax waaye nag dafa am si koo xamante nag mënuma ko ñàkk ba ñëw tudd sama dafa signé man contrat bu rëy ni ma yow moom chaque jour chaque ajuma naa la jox jeesneer di birigu sopp seen engagement rek nekkee foofu nga xamante ne mooy sa Tivaouane keroog defal nañu ma teraanga bu rëy ma leen di jaajëfal bu baax ka fa nag di Pam ak Mbaye di directeur bi gars réduction la def 30 pour cent gars dem nañ jëndi tissu yi euh, dem nañ jëndi jeesneer yi euh, toir kàll euh, tabaski bi ñëw na waaye nag boo jëndee tissu bu baax nag ba pare da ngay dem yóbbu ko si téer bu baax mu daal la koy ñëwal muy Rang